moo taxoon ma ne woon daal bu ñu dajee nii rek fekk fii sëñ baaj xaas ak euh, njaga danañ mën a toog waxtaan ñun ñëpp waaw maa ngi jéglu bu baax yàlla defal jàmm waaw xanaa mën nañu jébbal liggéey bi rek bu fekkee ne ndigal li kii na asalaamaaleykum noo ngi nuyuwaat mbokk yi yépp ah di leen santaat ndax wax dëgg yàlla cant ju du genn ay cant la kon nag dañ koy leen santaat tey ñaan cant yi yokk rek at mu nekk ngeen ñëw ah, ci ci baata Baye Cheikh fekk nu fi nun ñi nu nu nu teeru leen te tagal leen noo ngi leen di masaw yi daab coono ah lii nag moom moom day loo moom dañu ko bokk lii moom wax ndax alaaji jaraaf moom moom daalee yor màggal gi kenn xamul kañ la moom moom suñu njaboot bañ tàmbaleek léegi rek loxo moom mosu cee jóg ah alaaji Cheikh mi itam bu yàlla dogalee mu mu dëkk bi tegee ci loxoom wax dëgg jëf na ci jëf joo xam ne ji mboolem ñi ko yoroon it wax dëgg kenn kenn mësu ko cee jëf moom loolu moom yàlla dogal na ko ah kon nag ñu mënul lu may daal di sant te ñaan rek moom fan wi yokku ta bu ngeen dikkee rek jotee rek fekk ñi fi ñëw ñëpp ah, ànd ak wér dara bañ cee dal kenn waaw ngeen fekkanu fi waa mbokk yi asalaamaaleykum wa taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp te di leen siyaar di nuyu sëriñ bi di ko jox wàccuwaay bi nga xam moom la ko yàlla jox ci turu Baye Cheikh Gueye bi bi ñu demee waxtaan bay génn ci néeg bi la ni boo demee nag ma nuyul sëriñ bi nuyu gën a sell ci nuyoo yi te gën a tedd ci nuyoo yi kon sëriñ bi Baye Cheikh mi ngi lay nuyu mu ngi lay sant mu ngi lay gërëm mi ngi ñaan yàlla yàlla guddal saw fan te wéral say cër nee na ma woo nit nag ma santal baay bàcc géey bu baax loolu moom moo ma ko wax moom ni ma nag ma santal baay bàcc géey loo man kemt lay kàttan waaye cant moom mënta weesu sant ndax santoon na ko nëgë ni daaw ñëwoon naa fi waxaat ko mu santaat ko nëgë ni ren kon cant ga mu la santoon daaw doublé na ko di la santaat bu baax baax di la ñaanal yàlla si yàlla yàggal sa tax waaye ci dëkk bi te dool la jàmm lii nag firnde na ni kontaan na ci yéen am na mbégte ci yéen ndax kii mu yabal mooy xalifa këram muy Fallou Guèye mii toog moom rek bu ñëwoon mu doy sëkk ak barke waaye daf cee boole suñu mag ju baax ji di sëñ jaasi sëy nga xamante ni moo di loxoom mooy loxoom ca dëkk ba lu muy yónnee moom la yónni lu muy wax moom la koy wax lu ñu fay lijjanti moo koy lijjanti ak suñu rakk ji di mbay Guèye moom it ku baax la ci baay Cheikh di doomam di léppam suñu jigéen bu baax biit di soxna pen Penda Guèye di responsable politique ci dëkk ba moom it di nit ku baax ku bëgg lu baax di yéene dëkk bépp jàmm day dem sax wute dara ba mu am ko mu ñëw indi teg ci ëtt bi woo dëkk bépp ni leen ñëw leen jël baa mu teg ko ci penc ma woo leen ni leen ñëw leen jël kon géej ñu ngi lay sant yow bu baax li nga yéene ak li nga bëgg ci li ngay def yëpp yal na ko yàlla matal nga jot ci di nga ko war a jot ci barke Ahmadul Xadim jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax baay Jaraaf it ñu ngi sant njabootam gii ci Baye Seex laa ko dégg nag biig bi muy yabal Fall daf ne ko boo demee na nga xaar waa kër Baye Jaraaf ba ñëw kon yéen ngi leen di nuyu di leen sant ci turu Baye Cheikh sëriñ bi daal lii laa ne woon naa ko ci jotal ndax Baye Cheikh dama koo digaloon ni ma naa ko def kon mun ma ko bañ a def Fallou Gueye jërëjëf yow sa taxawaay yal na yàgg nit ku baax nga ku bëgg lu baax nga saa la Baye Cheikh wooyee da nga naan maa ngi jaasee xàbbaanee ànd bu la neexoon bañ koo def waaw kon yal na yàlla yàggal sa taxawaay loolu di sa xéewal jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. noonu fi téeméeri junni yoo dañ ko def ci mbéem màggal gi bi ngeen walbatikoo it ne nan ko nan ko tuddee darajaal ko moo tax mu yëkkatoo lii jox gone yi mu andi ko man nag lim ma wax nee na ma maay sa yaay sama jëwriñ foofu jëwriñ ji nangu naa ko ndax lu may def wax loo it nam ma ko waxee na laa ko defee mu xorom sedd guy moom loo tax mu jox leen lii am na ah, la fa la fa mburu bu fa ne ma ngay ci kër ga doole na ci bàyyi Cheikh nag moom dafa moom dafa doy jëw dafa doon bu yàgg jëwri ñuy màggal gii man ma man ma daa ànd ak di dem fa moom dafa doon jëwriñ ci màggal gi lu jiitu ah, gone yi di ci gone yi di ñi kon li sama mag ji wax noo ngi koy noo ngi di ko gërëm tey ñu naan yàlla fanam gudd lool lool lool lool jaraaf moom moom ñoo ñaan gi moom li ma ko wax rek fu mu toll daal noo yor ndax doo génn mosoo génn ci dëkk sa loxo ci dëkk mu ma sunoo may faatu du ma ko du ma ci génn ñii ma jëbatee jëbatee ku nangu la sama tànk ya ma taxawoon rek la ma bëgg ñu taxal ko kon maa ngi leen ci sant di gërëm jërëjëf di gërëm Seexul Xaddim bu baax a baax a baax di ñaanal sëñ Mamour Mbacke yàlla yàggal ko fi lool ci suñu kanam di ñaanal bu baax Baye Cheikh Guèye di ñaanal bu baax suñu waajur Baye Jaraaf euh, bis bi tey buñ ko dara jaalee Baye Jaraaf képp ku nga xam ne askanoo nga ngéy ngéy defe naa ne loolu mbégte lay nekk ci yow du doon it loo xam ne surprise lay doon ci yow ndax kin ko jox mooy kan ki kin ko jox mooy Baye Jaraaf euh, keneen ki ci topp moo di kan mooy Baye Cheikh Baye Cheikh depuis li li li li li Baye Bàcc moo liggéey mi chef de village bi wax léegi depuis bi nga xamee ne loxo bi mi ngi ci dëkk bi mi ngi ci loxoom ba léegi lépp lu nga xam ne maanaam mi ngi ko man mi ngi koy def lu mu man ak lu mu mënut mi ngi koy def ci biir dëkk bi ànd ko ak ak njabootam loolu nag leer na askanu ngay ngi wépp kon nag euh, bis bii buñ ko jëlee dara jaal ko bay jaraaf mu yebal délégation bu toll nii délégation bu mate nii yëkkati lépp lu nga xam ne maanaam am koom la dugal ko ci biir màggal gi mënuñu lu dul ñaanal ko yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla taxawu ko ci barke Cheikhul Khadim ñu leen di yóbbante benn yóbbante boo xam ne ci Baye Cheikh lañ koy yóbbante bu ngeen demee muy njaboot ak Baye Cheikh gépp ngeen xamal ko ne ko ngéy ngéy ak askanu ngéy ngéy ci turu président daayira bi sama nijaay xaas ñu ngi koy jëfal bu baax di ko ziar bu baax di ko ñaanal yàlla bu baax euh, kàddu gu mujj gi nag dañ koy yëkkati jox ko sama nijaay mi nga xam ne mooy président daayira bi mu tëj waxtaan wi waxtaan aussi ak euh, njaboot ak Baye Cheikh waxtaan aussi ak njaboot ak euh, bay Jaraaf ci ndigalal Serigne Mamour mbakki ñu ñaanalante asalaamaaleykum wa rahmatullah Euh, at mu jot nag ñu koy def di ànd ak waa Touba Vision muy tele bu nga xam ne saa su nekk dañuy ànd ak moom ci màggal gi di liggéey defe naa ne bu ma juumut ñi ngi bëgg a ànd ak moom lu war a toll ak ñeenti at mu doon tele boo xam ne it wax dëgg yàlla képp ku nga xam ne yaa ngi seet lu màggal ak ngay ngay boo xoolee da nga ci gis télé bi ñuy wax Touba Vision kon nag ñoom tamit ñu leen di ñaanal yàlla bu baax ñu ànd liggéey bi yàgg ànd liggéey bi ci barke Cheikhul Khadim kon ñu jox sama nijaay rek mu jottali fi ay kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullah di ñaan ci yàlla yonent bi ak Serigne Touba sama kàddu fekk leen ci jàmm yéen ñëpp daraje Seul Xadim ñoo ngi leen di siyaar di leen jaajëfal ci ñu ñëw gi ak coono ah di commencé suñu waxtaan nag ni ñu koy tàmbalee dañ koy jële ci baatu Baye Jaraaf Guèye ci kàddoom la ñuy waxee ndax euh, Baye Cheikh Guèye mu ma jëm si mooy suñu kilifa ñun ñëpp. waaye daf di jaraaf tey jii fii ñu toog nii ci ngéngéey tey ci askanu ngéngéey jaraaf moo fi ndawam tey xam naa ci lu wér ne xam na ko nongu na ko loolu xam naa ci lu wér wér wér moo fi ndawam tey jii te xam na ko nangu na ko ndax askan wi bu bàyyi ji seex ne diis tey jii mu toog palaasam te loolu jaraaf xam na ko nangu na ko ndax kat liggéey bi nga xam ne maa nekk ci kanam lu ma mas a yëkkati di ko jottali su ma tuddee Baye Jaraaf la may njëkk a wax mooy waxal Baye Cheikh ba pare mën naa koo seere te yàlla yonent bi Sëriñ Tuubaa kàddu wax ko mu tontu ma te néew ma ndax wax Baye Cheikh yëg na ko wala ndax wax nga ko Baye Cheikh kon loolu dama koy wax ci kàddoom di xamal ne Baye Cheikh day ñi ngi koy sant ba ci yàlla yonent bi ak Sëriñ Tuubaa ci kanam yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa ndax day waxuma la dëkk bii moom na ko ba noppi kenn mënu ko koo xañ waaye mënoon na koo moom toog fa mu toog du ci am soxla du yéer du làmb du xool waxuma la ba mu moomut waaye ba mu ba mu moomagut màggal na ngay géey gu mas a teew boo ñëwee fii ci nekk sëñ Mahmoud Mbacke bi da nga fekk bàyyi sa mu toog kon yàlla di dox ba mbir mi tege ci loxoom mu yokkati ko àll mus fee jóg jëmma mus fee jóg kàtt na mus ko fee jële kon ñu ngi ñaan ci yàlla yonent bi Sëriñ Tuubaa sama borom kattanal ko wéral ko dolli ko wér mu yàgg ci suñu kanam dund ay téeméeri at téeméeri at ci daraje Xaadim Moustapha loolu ñu ngi koy ñaanal ci làmmiñu jaraaf nag laa koy wax la ca des bu wéyee ma ñëw ci jaraaf jaraaf de defe naa ne mboolem ko askanu ngéngéy di gone muy mag turbaay jaraaf gi fekk na la fii ci ngéngéy jëfam fekk na la fi alalam fekk na la fi kon ñun màggal gi tuddiwuñ ko ko moo ko tuddee boppam ndax askan boo ci bokkee ba nga commencé man dara ba léegi sa dara mus faa génn loo yëkkati yóbbu fa lu baax jaraaf yaakaar na ngee ngee ko lu mu yor yaakaar na ngee ngee am na ci cër damaa dox ba fekk ko ci jumaa ji yot saxaw ba ma fekk ko mu toog man siyaare na ko bàyyi géey siyaar nuyu ko ba yëkkati ñaar téeméer ne ko damaa bëgg rek nga bar barkeelu ci liggéey jumaa yi a ne seen xaar te ngaa téye ñaar téeméer ma ne ko bàyyi m ah, ne ko ñaar téeméer yi mën na maa génn moom fii dugg ci lu neexul yàlla xam naa ne lii ngay def de am nga ko mën na ko Sëñ Tuubaa dénk na ko waaye lii ma yor nii li ma koy xeeb xeeb mën na maa génn fii dugg ci lu neexul sama borom moo tax ma jox la ko mu ne ma géy de bëgg ngeen xam ne de man jaraaf géy lu ma am lu ne di ko liggéey damay ñaan yàlla ne tubi Sëñ Tuubaa sama borom lu ma ca may ma bokk askanu ngi ngi wépp moom ma ko wax de maa ngi seere yàlla maa ngi moom képp ak yàlla yàlla moo ñu seere mu yëkkati ko kàddam ne ma lii nga ma gis ma di ko jëf de maa ñaan ci yàllantu bi sëñ Tuubaa lépp lu ma ci am sama borom boolee ma ko askanu nge nge wépp kon lool loolu defe naa doy na seere kon kon na leen wóor ne lii lii lii mu fi indi nii andi na fi lu ko ëpp ay ati ati ati ati ati at ci la dëkk musu cee musu cee dekki tànk musu cee yokkat kon màggal gii ñun tuddewuñ ko ko moo ko tudde boppam keroog bi ko ne dajalee dañoo wax fii ci groupe bi ne ma xaar ñu naan ah, ma ne jaraaf gay dañ koy tuddee xale yëpp wax ma ko mooy leen ah man de bàyyi lu gàtt gàtt des naa moom ñaare at wala ñetti at xam naa mbiru mbooloo de moom bëggu ca dara waaye nag yàlla dogal na may jëmm joo xam ne du ma jëfee lu dul kilifa lu dul kilifteef du ma ko jëfe mën a yëkkati sama téléphone ne ko bàyyi mu ne ah ma ko dey maa ngi jéggalu de ndax dama am lu ma tënk ndax mbooloo su fekkee nañ laa teg ci kanam ne la yaay yaay suñuy tànk yaay yaay su yaay yow lañ ci kanam kon tënk nañ la gannaaw tënk nañ ma nag te mbooloo mi xale yëpp seen seen a bëgg egsi na ci ne bis bi yow lañ koy tuddee tey ñi nga fi maaseel ñu ci mag ñëpp ba ci man mii ñëpp xam nañ ne lu jëm ci yëngu jamono wala lu jëm ci yëngu du sa du sa bëgg-bëgg du sa kii ñaar yëpp daje na ci nag ma am ak jaaxle moo tax may doxi di laaj ci kilifteef su fekkee ne yàlla dogal neex na la ma wéyal loolu balaa ma ci wax ak kenn dama koy wax ak yow mu ne ma yow day doom mu ne ma ah, mu ne ma yaa fi sama doom te doom nawle la kon loo bëgg lu ne dama la cay fekk waxum laa loo xam ne da nga koo bëgg ñu jëntal na ne la mënoo ko ñàkk bañ a def te mbooloo ma nga jiite man nga leen jiital ndax yaay sama doom kon li nga bëgg fekk naa ci ni nga ko bëggee li mag ñi wax dëgg la ndax loolu du sama du sama jëmuwaay waaye nag doom nawle la gannaaw doom nawle la nag te dañ la koo sant nga wax ma ko fekk naa la ci ci xol bu sedd guyu ni nga ko bëggee fekk naa la ci ànd naa ci ak yow kon loolu maa ngi ko ci sant di ko ci gërëm di ñaan ci yàlla yonent bi Serigne Touba yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla wéral ci ay cëram yal na yàlla yokk kàttanam ku ko xaar yàlla nga xaddi ci barke Cheikhul Khadim ci barke Serigne Saliou Mbacké ci barke Cheikh Mamadou Fall lii may wax na ngay ngay gépp laa ko waxal bépp doom boo woon fii tey mu toog fii ñaari jëm yi di bàyyi Cheikh Gueye bàyyi Jaraaf Gueye dañ la ci seere lii ma seere kon ñi ngi ñaan ci yàlla suñ Touba sama borom bàyyi leen ci suñ kanam ba ñu raamaan ci daraje Xaadimu Mustafaa yéen ñii di ñëw nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen xamal ne bis bii day ñoo ngi a ko bokk ndax diggante ak bokk ak tànk Serigne Touba rek la ñuy wax ñoo bokk dëkk bi tànk Serigne yi mu fi ñëw suñu doon seet kon na ngeen xam ne bis bi ñoo ko bokk ñu ngi ñaan yàlla Serigne Touba lépp nag loo xam nañ ko ci muy muy muy lu ñu sëriñ bi jox yàlla nañ ko bokk ak bépp jullit ci darajee Xaadim Mustafa waaw waaw bisimilah jëmm ji ngeen wax ne mooy maire bi nga xam ne moo joxe ñaar fukki junni ànd ak ndaw see moo Gueye xëy na daa mel ni ñëw na ci biir sax waaw daa mel ni ñëw na ci biir bokk yi ndax euh, géy moom defe naa ne Massiré sa Dieye ñëpp boo ko dàq mu mu mu mu ñu kon mel na ni ñëw na ci bokkam waaye ñu ngi koy ñaan ci yàlla yonent bi Sëriñ Tuubaa li mu ci yittewoo taamu ko ci ci barkem Gueye Gueye yàlla na ci am lu faw ko njortam